président nag def ci lu bari mu am stratégie bu am solo mu la stratégie nationale pour l'égalité de genre boo xam ne moo tënk toutes les interventions pour suqali jigéen ñi def naa coow yi bari na ci réew mi wax ci bari na waaye président de la république fi mu tànkam xam na ko fi mu jëm leer na li ko ñor mooy jàppale askan wi particulièrement jigéen ñi ñu fexe ba fi ñu nekkoon ñu def ko jëm feneen ak saa seen ay ressources former leen rendre seen leadership waaye financer leen seen initiative ngeen am loolu la président de la République du Sénégal kon mérite na sàngal ko mérite na ko dundal ko parce que kooku la tànnal Sénégal te fi loo xam ne kenn musu ko fee def ba bëgg yéen nag na ngeen di taxaw tàcc ko président de la République mérite na ko ñu ñu dugg ñu jigéen ñëpp di sàngal monsieur le président de la République ana jëlee waaye leen président waaye ana su ne an lay Fatou Ndiaye mooy président de la République balaa ñu jël kàddu parce que il le mérite président tey jii bu ma demee ma defal bilan des avancées dans la promotion de la femme au Sénégal ils sont fiers parce que président nga jigéen ñi dafa bari dañu jàppale askan wi kenn nag jàppale wu ko ren jii nag sujet bi nga xam ne moom lañ wax mu égalité d'aujourd'hui pour un avenir durable loolu fekk na ci président. ñuy liggéey nag pour réduire le Sénégal entre les hommes et les femmes waaye fexe na ba jël seen salaire en aussi bu baax a baax a baax kon excellence bi ngay gërëm di la sant à travers le ministre secrétaire général de la présidence ñu teewal na fi ñu bëgg nag ñu ñëw sagal président bàyyi def monsieur le ministre sant ñaari kàddu ñu teg ko ci la jërëjëf merci. honorables invités chères femmes du Sénégal. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de son Excellence M. Macky président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, pour vous féliciter et vous remercier à l'occasion de cette journée mémorable pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Nous célébrons aujourd'hui, dans la communion et la ferveur,

et de votre détermination à perpétuer nos valeurs culturelles, de bien-être familial et à consolider la cohésion sociale et le développement durable. Comme vous le savez, célébrer et promouvoir au quotidien la femme, c'est protéger la société, c'est garantir sa stabilité et c'est le meilleur moyen de préparer au mieux l'avenir. Célébrer et magnifier la femme, c'est par-dessus tout bâtir en permanence un monde d'égalité, un monde de paix et un monde de communion et de concorde. Sans revenir sur le thème du jour, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'élan engagé par le chef de l'État et le gouvernement est de renforcer le rôle de la femme dans la société et dans la vie publique globalement. le président de la République pense en cet instant particulier aux femmes et aux filles du monde rural qui sont durement affectées par les changements climatiques. C'est pour le chef de l'État tient à ce les politiques publiques prennent en charge rapidement cette catégorie vulnérable à travers les différents programmes sociaux. C'est également le cas avec la guerre qui doit s'ériger, selon le chef de l'État, comme une véritable banque des femmes pour développer l'entrepreneuriat et dispositif d'encadrement et de financement de proximité. Je ne saurais allonger mon sans féliciter et remercier les détenteurs du grand prix du chef de l'État pour la promotion de la femme, les braves femmes de la région de Madame, de Doubré-Joli, les femmes de Saint-Louis, ont su tirer de épingle du jeu. Nous saisissons également l'occasion pour féliciter les membres du jury, saluer et féliciter les femmes pionnières du Sénégal et réaffirmer ici l'engagement perpétuel du président de la République à être le grand protecteur des femmes et à améliorer durablement les conditions de la femme. Je saisis également ces propos pour conclure et rendre hommage à Madame la ministre Ndeye Saly Dieng Diop pour son travail acharné et rendre hommage aussi à ses équipes qui ont permis l'organisation de cette brillante cérémonie. Nous félicitons également ONU Femmes qui accompagne inlassablement les femmes, la délégation de l'Union européenne et l'ensemble des collectivités territoriales et des femmes libres mobilisées ici qui travaillent d'arrache-pied pour améliorer notre société et pour favoriser le développement durable du Sénégal. Enfin, Le message du chef de l'État aux femmes, c'est un message d'encouragement, c'est un message de félicitations, c'est un message de soutien. Et je voudrais également conclure en vous transmettant le message de salutation, de respect de Madame la Première Dame, Mariam Faisal, qui est avec vous et qui vous soutient dans vos actions. Je vous remercie de votre attention.